mission Halas. rajo Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu di am mbégte saa su nekk ci ni ngeen di àndee ak euh, suñuy programme di ko ànd ak ñun ci suñu. émission Khalas Modi di journal fait divers fi ci radio Futur Média lundi ba vendredi ci waxtu yi ñu fi tew di and ak yéen euh, ci ay xew-xew yi jamono yo xamantene ji euh, ci réew mi lay xewé wala ci bitim réew di concerner ay doomi Sénégal ñu di ci waxtan di ci sottante khalat lolu moy khalas khalas ma di ci and tay ji ak euh, sama waji le parisien ou bien le néo parisien di passe partout maa ngi leen nuyu bu baax passe may lay ziar ndjay le français. waaw kon baax na bàyyi ma yem foofu kon. maa ngi lay ziar bu baax a baax Ndiaye di la nuyu. maa ngi nuyu auditeurs yeeg internet di ziar ñëpp. jërëjëf ñëpp a ngi lay delloo ziar gi. ñi si biir réew mi ñi ci bitim réew di ñaanal jàmm. ku Ndiaye euh, euh, xalaasu ki dem bi. kan la ci. yaa ko commencé woon na Ndiaye sa xalaas la di. waa ñu fi dooroon soixante quinze millions. Ah, ki waa ji naxoon Serigne Touko di ko laaj xaalis. man ko jox waaw. ba jox ko lu toll ci soixante quinze mille. soixante quinze millions waaw. pourtant démb am na am na ku ku ñu fi woote di laaj fu fu mu mujj xam nga man dama ëppal. ma ñëw laajteew ma. ñëw rek ak samay affaire xam nga bu ma France bon damay ñëw je suis j'étais un peu dépaysé maîtrise la situation donc dañuy dem ci waa ji fu mu que la modestie c'est l'âme des femmes. wuy ma. Uh-huh. ñu xool waa ji fu sama benn xarit daal moom laa leb xaalis moom sa leb naa ko ba mu lebal ma waaye ba ma bëggee dolli pour mu lebalaat ma fekk moom mi ngi Sénégal Europe sax la nekk mais moom ba mi ngi Sénégal mi ne waa baax na maa ngi fay ñëw mais après la ma expliqué nee na nekk Europe xamante nañ depuis 2005 ba ma ñëwee musul gis ma leb ko xaalis wala ma ñaan ko moom dèjà ba ma ko njëkk woo di ko leb rek dafa jaaxle mu lebal ma un million bi ma bëggaatee dolli cinq cent mille mu ñëw no waaw yow da nga ne woon fan yi da nga war a jox xaalis ma ne ko waaw mu ne ma léegi jotoo ci ma ne waaw léegi lu tax bëgg a dolliwaat ma ne ko ma bëgg a dolliwaat xaalis bi matul ne ma xaalis bi lan ma ne ko waaye daa am bu muy lijjanti rek waa ji keroog def na deux heures de temps sama kër insisté parce que moom dafa xaw a yeewoo ba ma nettali ko bi yëpp nu mu demee ma bi yow it nag lii kenn du ci yedd nit sa waaye dañuy fen dañ lay nax rek ma doog a mel ni ku tekkee ko nag te boo ko weddee fexeel ba ma gis waa ji mu toog ma toog dinaa ko wax loo xam ne dina avoué ci sa kanam ma ne ko fi ne nii waa moom gis ko yomb ndax fi ne bu ma ko woon laaj ko fu mu nekk danaan mi ngi ordre Dakar mu ne waaye de toute façon bu leen joxati xaalis rek te na nga fexe jàpp ko kooku daal moo ma ci génne guddi gi nelaw ma nag may xalaat sama boy xaalis bi affaire bi fu mu jaar mu mel ni nag maa ngi doog a ak sama xel mais terew loolu yëpp nag ma ànd sama sago ba affaire amee joxatuma xaalis mais waxuma ko dara may naxanteeg moom di naxanteeg moom pour mu ñëw sama kër waaji waaji nanguta ñëw mu mel ni dafa sib sone benn jour mu toog rek nekk ma yow daa mel daa am koy waxal ma ku waxal ci la mi koy waxal ci affaire bi man ma kenn ku waxal ci affaire pour dalal xel waaye ñëwul ñëw ma dem porte ko plainte dig bi ma ko porté plainte dig décembre ba février taxul ñu jàpp waaji mais moment boobu yow joxuma xaalis waaji dem na ba découragé moom ne bi toj na mais man waxuma ko ne affaire bi toj na mais moom xam na ko a joxeetuma xaalis bu ma woowee ma ne ko ah, fi nii moom xaalis te dañ daan déggante chaque jour maintes fois ñi dem a dem ba dañuy toog une semaine duñ déggante mais même bu ma woowoon sama dama koy woo benn jour daal yàlla ma dimbala rek ma dem dig rek taxaw leen na leen ma am naa fi benn plainte yàgg nga expliqué ñu boole maag benn commissaire commissaire bu bu gëree sax mu ne waa toogal ma toog mu génnee dossier bi na ma jox ma numéro téléphone waaj ma jox mu woo Sonatel fi ma toog ne nañ ko ko localiser ñu ne ko mi ngi Ziguinchor ñu ne ko fan la nekk Ziguinchor mu ne xama fan joxe woon na route bi fàtte naa ko mu ne waa baax na ndeke moom commissaire Ziguinchor la jógee ñëw dik am ku mu woo commissariat bu Ziguinchor jox ko numéro waa ji neen na fexe jàpp léegi nag ma ne leen même waa ji bu ngeen ko mënta jàpp am na beneen xaritam boo xam ne complice la ci affaire bi da waa ji mos naa fa ànd ak moom ay dem fa après ginnaaw gi bi affaire bi commencé moom ma doon woo di ma encouragé naan dëgg la te kooku la ma doon wax kooku am na xaalis léegi ci lool la ko amee nangam nangam léegi nag bi ma joxee numéro téléphone kooku ne leen kooku moom mu ngi ci marché bi ko loolu nag moo dimbale police yi jàppuñu waa ji directement sax kooku la waa ji laajte ba dem place fekk wax naa ko marché bi mu nekk ci direction ne mu fekk fa jabaram police bi ne ko dama am bëgg ay ravitaillement bu ñëwee nekk mu woo ma mu ñëw jël si ko rek takk ko ba mu ko takkee nag ne ko léegi wool waa ji fexeel mu ñëw fii fekk ñu ci commissariat bi su waaji ñëwul du mu la moom moo woo waaji ba waaji ñëw fekk leen commissariat ñi téye leen ñoom ñaar ñëpp transféré leen dig Dakar ba ñëwee nag ba taxaw tribunal nag ma dem gis waa ji avant ñi leen di defeere ci dëkk mi ne moom yorul dara xaalis bi yëpp nangam nangam seey na su ma ko naree topp fii non duñ ko tëj lu bari mais man naa cee topp te du ma jot ci xaalis ma li ma intéressé daal lu ma mën jot ci xaalis dig na ma fa sax na dana ma jox xaalis mais après day fen yorul dara fekk xamoon naa avocat bi même avocat bi la jëlal avocat bi ne ma si lu la dale ma ne ah yëfi doomu aadama rek kii daal daf confiance rek loolu léegi nag après ma toppaat ci moom nag pour foog ne dana ma joxaat même bu dee deux millions trois millions parce que boobu yoru ma sax lu ma lekk. waaw kaa bi ne ma fekk bëgg ngaa dégg-dégg kii yorul dara. man sax amul lu ma fay ba fe fofu foofu la yem ah après dafa mujj taggo jabar ja sax ndax way dekk bi dal señ bi yalla ñu yalla tutural dal way metti na torop dañ lay fekk ngay lu di liggey ñi xey ñoo toroxal la ci ay fetis ay gàllaaj yoo xam ne yow demandé wo ko te ñom dañuy dem préparer man dal xawma ma nguur gi ban solution la mëna jël ba mën a jàpp sëriñ yu koy def way li dal mom waron nañ changer loi assemblée ba ku ko def minimum war nañ la ci tejji moo gën a grave viol parce que famille lëmm lay toroxal famille lëmm. du noonu la woon hmm. xam nga lu gën a metti hmm. mooy góor gu daanu. alhamdulilah. góor gu daanu. Hmm. moo gën a metti ndax problème bi mooy ñi la sopp. gëm la danga nga am kersa ci seen kanam. non yi la wër nga xamante ji ñoom heure bu ñu xëyee lu la yàqal la ñu yàkkamti da nga am kersa ci sa kanam mm-hmm. waa ji daanu la mm-hmm. xam nga mom dund nako pare na ca nee na mm-hmm. la wax ji am xam nga tax mu ñëw fii di ko wax am yéene ji mooy mu bañ dalat dalaat keneen moo bu nit ñi di wax bu leen juger surtout nañu ci jànge surtout parce que bu dañuy débat pour euh, nit ñi juger leen. ñu fi studio bi day fees dell ak expert kenn ku nekk joxe ci sa xalaat. mais nañu ci jàngee moom it di ko masawu. wax na lu am solo nag yenn xeetu kër yi nit ñaa ngi koy def di ci génn te dara du leen ci fekk. si waaw la ñuy génn. léegi nag il faut que ñu gën leen ñu gën a protéger nit ñi parce que euh, paas xam nga lan moo tax euh, drogue dellu gannaaw ci Sénégal. mooy dañoo xam kuñ ci jàpp la la cay fekk. dafa am ay peines dissuasives yoo xamante ne ji. tax na ñu bare bare bare bare delu gannaaw hmm. yenn yi lor doomu adama yi kaso yi fess na del ak nit yo xamantene ji la leen fa dugal moy dañoo jël xaalis jàmbur jox ko nit kooku dawa xaaliss ba hmm, hmm. kaso yi Senegal yi tay bu tay bari nit ño xamantene ji da ngay deg. abi de confiance escroquerie ñi ngi may deg lolo leen fa dugal tam am ñax gis ñu sa xaaliss ba mooy li ma la wax lolo leen fay dugal moo tax il faut ñu gën leen a protéger de feneen fu ñu jëm. dama dinaa la wax ñaari mbir Ndiaye. Mhm. li mu mujjee wax nii. Mhm. criminaliser fee yii nii parce que Ndiaye est-ce que xam nga genre bu xaaba yii nii ñoo nekk ci bi ñooy dóor gars yi ku ci am problème banque ñoom ñoo la dóor ñooy dóor xale yu jigéen ñi ñuy criminaliser ko nag il faut ñun tamit ñu yeewu. waa Ndiaye d'accord mën ngaa yeewu gis nga Ndiaye. Mhm. souvent nam loo dal yow tu te poses la mën a dalee. fu ñu xam. xam nga wax na confiance. dem na ba familiariser ak waa ji. famille jabaram ay doomam mi ngi mel ni tey man ak yow dalay bett. certes mais nag nañ ci teg ay daan yoo xamante ni képp ku ko def bu xaaba yii di dóor jigéen ñi ku ci dem di ñaanu pour am doom ñu jàpp la nelawal la tëddee la nga biir ñaanu si kër moom moo fekk ñoom ñoo la ëmbal. comment nga doomu aadama dëgër bopp viol la ngi nii dañ ko criminaliser te chaque jour ñu dégg ko fi. ba tey nañ appliquer loi bi rek. waaw xam dana wàññeeku nag moom fu ñu jëm temps ngi dem. criminaliser ngóor jigéen criminaliser bu xaaba yi criminaliser viol lépp Njaay xalaas bi yaa ko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 jox ma dama marié am naa fi deux ans ci sëy bi mais ba tey ci lu ma ëmb ci lu ma dara waaye li ma sama ki ma takk doon woon ba ma dugg ci biir ak li ma gis safee de yàlla dafa dogal ni topp na ma ay at balaa ma may takk mais woon naa confiance nag amon na ci mom confiance parce que le ma won woon douceur dal cool nopi yaru jigéen ju du bëgg sey bu nek da nga bëgg so duggee nga kaasewu dugg ci lo xamni problème mënu ñak mais bu ñëwé dal nga xamné dina jaar lool ngay ñaan yalla waaye bo duggee ba ci biir ngay dog di gis amna deux ans ci sëy bi mais nag am bu waaye nag dama day dégg ay wax problème famille rek deux ans sax dagal na jigéen ñi mom moy lool bo sey ci kër bu mat bo amul dom dañuy jël tool bi yépp kepp lako té mëna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 ba pare nak daf ma fekkon ma don liggey yor sama salon te dama tejj yep ñew tok di seyta yalla tax tejj lepp baye sama lepp ñew ci kër gu mag de ay ay loolu di yàq dem baye sama métier yep ñew tok lool moma gëna na a ma seyta yalla tax sama yaas ma muy da ngay sëy mu bàyyi lépp ñëw toog di sey mais ama ma grande surprise benen numéro woo ma nek gelam la xaw ma nan la def ba am sama numéro baye ma seen discussion ay vidéo yu bam vidéo yu ñu ko ah baye ay discussion mom sama jëkkër limi waxe lepp am preuve lu ma ci tegal yow la jabaru diiw ma ne ko wa def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 julli ñaari raka toog ñaari fan yoy dugg ci salle be yu jël auto ordinaire bi naan rek la doon bëgg mais dafa doon julli xamna li ñuy wax ci xaru man ma ngi naan xale yi jigéen yi soode seen jëkkër li lañuy def jigen ñi xaru bo sété ba ci biir amna ay secret ñuy bàyyi ci ñoom mais nak ma sant na sama yaay bu baax parce que def na ci man yar may jóg di daan di dëgg ju daan demi journée bi bu guddi ma gaawon gaawantu japp julli gee dafa reer mu reer ma tëdd mu ngi ci téléphone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 mënoo ko satisfaire jabaram ngir yàlla yonent bi jigéen ñi sonn nañu ñu ngi muñ xam ci biir kër yi ñu ngi muñ loo xam ne ci biir kër yi barki rasulaay bu démb doon tey billaahi walaahi taala duma dugg ci say Mouhamed Ndiaye moom laay gën a préciser nga xam ne moom xam na nu muy exprimer xam na nu mu leen di waxee yéen ñëpp mën seen liggéey mais lii Ahmed Ndiaye laa ko gën a préciser ngir yàlla ay yonent bi na wax ak nit ñi man bu tey démb doon tey walaahi duma dugg ci sëy bi te balaa ngay sëy lu nekk ngay dégg coutume sénégalais dangaa war a sëy sëyloo dangaa naa lii te ko sañ wax liñ lay won ak li nekk si ñoom ça fait kii ku ma waxoon nii la mel duma ko gëm. ñun ñëpp a ko déggandoo de Mohamed Ndiaye ci yow laay waxal. yow kañ nga yegg si. <laughs> kañ kañ nga yegg eh. am ah. jabar am gel ñu jàpp ci góor. ku jigéen ki di expliqué am lu ko metti romb fi paas il est marié. Hmm. Abba il est marié Mohamed Ndiaye laay waxal yaa moom wax ji.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 Thank you.